Badiane yaa ngi teg gàttal. xale yi kontaan nañu. mais Badiane doo tere ayatu kursi. kookan la. ayatu kursi tere ayatu kursi. mbay bàyyi ma nga may teel a ayatu kursi. waaw dimbale ma baalu sa fan si ak ngir yàlla wala ñoom ñoo lay baal. baal naa ñëpp dama ñëpp baal. kon yaay seen naa gargar bi quoi. waaw maa fi ne Amina moom ma ko dénk. ah Amina Poté moom ma ko dénk. Amina moo la fi daal. moo ma dénk gargar bi quoi. donc lii mooy sa première édition. waaw léegi noo gisee gargar bi. waaw ah, rafet na macha allah. maa hmm. ngi daal. yaa ngi ziare. maa ngi ziare ñu sant bu baax. waa c'est bon merci. yaa ngi si wér koor gi. ah yaa ngi si koor gi. waaw. donc temps yii yëpp yëpp gis nañ temps yii yaay moom mooy vent bàjjan bàjjan war a lool. moom mooy vent moom mooy vent de <laughs> Sénégalais yi ñoom moom mooy vent. Ah. Sénégalais yi ñoom moom mooy vent. fan si ñoom moom mooy vent. gis nañ aussi euh, Waly way la mu def son bu rëy rek. waaw moom bu léegi nag nu ngeen nu ngeen mel seen relation la ñu. xanaa a sukkar koor. waaw. bàjjen léegi dañ lay ñaan nga tere ñu benn surat. benn la. benn surat. ñu tey lu bàyyi bu may tari loo. ah mais da ngay tari si weeru koor nekk. mën naa jàng de. waaw hmm. ah, jàngal bismillah ñu ko. waaye bàyyi leen ma damay makk yow damay dem di gis. <laughs> man kenn du kenn ma kii nu xam ne ni ñu di sax. dañ la fi tere loo nga juum fi ah, ñu ñu ñu ñu lay kii vaar xaw ma. loolu la vaar mais jàngoon nga ba nga nekk. waaw ah, jàng naa ba nekk xale. waaw ah, may ñu benn saar ko. non garaaw. benn rek benn bu gàtt rek. ku doon laaw sa baax. mais ba jàpp ah ku doon laaw waxat. ku doon laaw waxat. <laughs> est-ce que xamoon na ku baax man kii du ma ko interrogé kii dafa baax. waaw wax ak yow. ñëw ni wax ni fët fët rek. waaw waaw waaw wax na ma. Aquaterra, si pure, si légère. sama waaji sama waaji ndama ngi ci gàcce ngi ci mbay sama waaji sama xarit sama rak sama ginnaaw ki bëgg yaayam ki yërëm yaayam kii borom kees mbay ngi teg affaire karma séeri karma déedéet kay ndaysaan mbay sama waaji kenn du yow mhm. kenn du yow uh-huh. kenn du yow waa mbay sa waaji sa sa gars yi may téléphone mbay téléphone bi seer ñaanal kan laay ñaan mbay euh, jaay. Carrefour business wax ko ko. Carrefour business. Carrefour business. Mhm. gannaaw yàlla gannaaw sama ñaanu waajur maa ngi lay di sama problème bi muy téléphone. man mii tam man mii tamit dama am problème téléphone. CSB. Selbé nee na mi ngi lay dagaan téléphone. man mii dama am problème mu téléphone. bul jooy bul jooy téléphone bu cher nga yor. ñaari yi nga yor tam. kii laay Motorola billaay Samsung bu yàgg laa ji li tamit sama waaj ah kan lay bala ah sama fans ba billaay wallaay maa ngi leen di jéggulu maa ngi leen di jéggulu jéggulu bu baax a baax ndax des fois mën naa def erreur parce que nekkul ni booy joué dara ñëpp ngay neex aussi tey des fois nga def dara juum fekk na yow nga jàpp li nga def baax na fekk li nga def da nga juum maa nga jéggulu ñëpp ci weeru koor bi yàlla may ñu nag ñu fekk ko ay at yu baree baree baree baree baree bare ñu nekk ci lalu hôpital yi yàlla yëkkati leen ñu nekk prison yi yàlla génn leen ñi nga xamante ni dañoo jiitu yàlla yërëm leen yàlla oyof suuf seen kaw ci barke yonent bi yàlla na yàlla ñu teewee ay at yu bari mbay yow balaa déwén yàlla may la soxna tamit mbay sonn nga de <laughs> sama waaj ayatul kursi ayatul kursi ay tugu si mooy xula bismillahi rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin lo moom ay tugu yi mbay loolu dafa gudd de waaw kay bismillahi rahmani rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ولا أعوذ برب الناس مالك الناس الله الناس من شر وسواس خناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم ولا أعوذ برب الفلاح من شر ما خلق ومن شر خاسخين إذا وقب ومن شر نفاسات في العقد Oumine Serigne Xaas Dine. Eh, <laughs> ren. gargot bi xam ne dafa yéegoon. waaye dañuy bëgg mu gën a yéeg. ndax boo fekkee ay nit di liggéey di yéegal seen biir da ngay fas yéenee topp seen tànk soo ko mënta yokk bu ko wàññi maa bëgg kar